salaamaaleykum mbokk yi nga xamante ni yéen saxoo di topp seen émission sunu yaakaar amaat nañu mbégte teewaat fii ci seen kanam ngir wéy la jukki yi nga xamante ni tàmbaloo nañ ko boobu ba léegi waaye laata ñu koy wéy dinañ def ab pàttali tuuti ci li nga xamante ni jotoon nañu ko gis ci jukki yi weesu. gisoon nañu ni Yeesu doon artoo taalibeem yi ci mujj jamono gisoon nañu tamit ni Yeesu doon artoo tamit. ni mu doon jëfandikoo ay lépp ngir firndeel nguuru yàlla naka la mel ak naka la ñu bokk ci nguuru yàlla wala jëflante Euh, tey dinañu laata ñuy wéy rek ñu ngi leen di nuyu encore di leen sant di leen gërëm di ñaanal yàlla mu barkeel leen di ñaan yàlla mu saafara ñi nga xam ne dañoo am ay jafe-jafe ñu feebar yàlla fëgg seen bopp yëkkati leen ba ñu mën a dellu ci seen yëngu-yëngu di leen fàttali rek ni mën ngeen ñoo bind euh, ci numéro yi nga xam ne yéen a ngi koy gis am na whatsapp mën ngeen bind it seen i laaj ak seeni xalaat ci suufu njàngale yi nga xam te ni yéen a koy yéen ngi koy topp suñu jukki tey ñu ngi koy eh, amal ci Mathieu Sarr ñaar fukk ak juróom benn nit yi njiiti yoon yi fexeel nañu yéesu bi nga xamee ne yéesu wax na loolu lépp ba noppi mu ne taalibe ya xam ngeen ne ñaari fan a des ci màggalu bésu mucc ga dinañu war doomu nit ki daaj ko ci bant booba nag saraxalkat yu mag ya ak njiiti xeet wa dajaloo ca kër gu rëy gu saraxalkat bu mag ba tudd kayif ñu daldi gisee ba xam lu ñu mën a fexe ba jàpp yeesu reylu ko waaye ñu ne bu mu doon ci bésu màggal gi ngir yëngu-yëngu bañ a am ci nit ñi jigéen ja tuur na latkaloñ ci bopp yéesu bi nga xamee ne yéesu nekkoon na dëkku betani ca kër simon ma gaana woon jenn jigéen ñëw ci moom yor njàq lu ñuy yette doj wu ñuy wax albatar njàq la defoon def latkaloñ ju jar lu bare bare noonu bi yéesu toogee di lekk jigéen ja tuur ko ci bopp yéesu waaye bi ko taalibe yi gisee ñu daldi mer ne yàq gi lu muy jariñ ma mëneesoon na ko jaay ci lu bare jox xaalis bi miskin yi yéesu nag xam lu ñuy wax mu ne leen jigéen ji defal na ma jëf ju rafet lu tax ngeen di ko sonal miskin yaa ngi ak yéen bés bu nekk waaye du ngeen ma gis ba faaw kii ci li mu tuur laj koloñ ji ci sama yaram def na ko ngir waajal sam rob ci dëgg maa ngi leen koy wax fépp fu ñuy yéenee xibaaru jàmm ji ci àddina sépp dinañu fa fàttali it li jigéen ji def yuda war na yéesu ca waxtu woowu kenn ci fukki taalibe yi ak ñaar ku tudd yuda iskariyot dem ca saraxalkat yu mag ya ne leen lan ngeen ma mën a jox ngir ma jébbal leen yéesu noonu saraxalekat ya daal ko wàññal fanweeri positi esteter di dale ci saa soosa nag yu di fexe jamono ju mu leen mën a jébbale yéesu reer bu mujj bi bés bu jëkk ca màggal ga ñuy wax mburu mu amul lawiir taalibe yi ñëw ci yéesu ne ko foo bëggoon nu defaral la reeru bésub mucc ba yéesu ne leen dem ca dëkk ba jëm ca diw ngeen ne ko kilifa gi nee na sama jamono jege na ci sa kër lañ màggalisee bésu mucc ba man ak samay taalibe noonu taalibe yi defar reeru bésu mucc ba ne leen yéesu waxe woon bi nga xamee ne timis jot na yeesu toog di lekk moom ak fukki taalibe yi ak ñaar bi ñuy lekk mu ne leen ci dëgg maa ngi leen koy wax kenn ci yéen dina ma wor taalibe yi am naqaru xol bu rëy ku nekk daldi ne ko mbaa du man borom bi yéesu ne leen kii dugal loxoom ak man ci ndab li kooku moo wor doomu nit ki mu ngi dem ni ñu ko waxe ci mbind mi waaye ki koy wor dina torox bañoon a judd moo gënoon ci moom yudaa mi ko naroon wor laaj ko mbaa du man kilifa gi yéesu ni ko wax nga ko noonu bi ñuy lekk yeesu jël mburu sant yàlla damm ko jottali ko taalibe yi mu ne leen jël leen lekk lii sama yaram la ginnaaw loolu mu jël kaas sant yàlla jox leen mu ne leen yéen ñépp naan leen ci ndaxte lii mooy sama dere ji fas kóllëre gi te mu tuuru ngir ñu bare jot seen mbaalu bàkkaar yi maa ngi leen koy wax dootuma naan gën a gannaaw si tey ndoxum raisin mii ba keroog may naan ak yéen ndoxum raisin mu bes ci sama nguuru baay gannaaw loolu ñuy woy yàlla ba noppi génn dem ca tund olivier booba yéesu ne leen yéen ñëpp dingeen ma dàggeeku ci guddi gii ndaxte bind nañu dinaa dóor sàmm bi xarit jur gi tasaaroo waaye bu ma dekkee dinaa leen jiitu ju galile Pierre nag daldi jël kàddu gi naan bu la ñëpp dàggeekoo man duma la dàggeeku mukk yéesu ne ko ci dëgg maa ngi la koy wax ci guddi gii balaa ginaar a sab ñaar bi yoon dinga ma weddi ñetti yoon Pierre ne ko boo xamee ne sax dama war a dee ak yow duma la weddi mukk taalibe yépp it waxe noonu yéesu ñaan na ci toolu Setsamane ci biir tiisu rëy bi loolu amee yéesu ànd ak ñoom ba ca bëréb bu tudd Setsamane mu ne taalibe yi toog leen fii ma dem fële ñaan fa bi mu waxee loolu mu ànd ak Pierre ak ñaari doomu Sebede daldi dem tiis ba xonet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 doolay xoolandoo ak man benn waxtu xool leen te ñaan ngir bañ a daanu sikk fiir seen xol jàq na waaye seen bind woyof yéesu delluwaat di ñaan ne sama baay bu fekkee ne kaasu naqar bii mënumaa teggeeku te naanuma ko kon na sa coobare am yeesu ñëwaat ca taalibe yi fekk leen ñuy nelaw ndaxte seeni bët dañoo diis mu daldi leen bàyyi waxaat waxaat loolu ñetteel bi yoon noonu mu ñëw ci taalibe ne leen nelaw leen léegi te noppalu waxtu wi ñu war a jébbale ci loxoy bàkkaarkat yi jege na jóg leen nu dem xool leen ki may war a ngi nii di ñëw jàpp nañu yéesu bi muy wax loolu nag yuda mi bokkoon ca fukki taalibe yi ak ñaar te naroon koo war agsi ànd ak mbooloo mu bare jóge ca saraxalukat yu mag ya ak sa njiitu xeet wa te gànnaayoo jaasi ak yet fekk juda moomu joxoon na leen tegtal ne leen ki may fóon moom la jàpp leen ko mu daldi ñëw ci yeesu nag ne ko salaamaaleykum kilifa gi daldi ko fóon bu tàng yeesu ne ko sama xarit xam naa lu tax nga ñëw noonu ñu daldi jege si song ko jàpp ko ca saasa kenn ci ñi àndoon ak yeesu bocc jaaseem dóor surgab xaraxal saraxalekat bu mag ba ba nopp ba dagg waaye yéesu ne ko roofal sa jaasi ci mbaram ndaxte ku bocc jaasi jaasi moo lay rey xanaa xamuloo ne mën naa laaj sama baay te dina may may ci taxawaay mi mbooloom malaaka bu xel dajul waaye su ma ko defoon nan la mbind mi di amee ndaxte bind nañ mbind mi nee na nii la war a amee booba yeesu ne mbooloo mi jóg ngeen ngir jàpp ma gànnaayoo jaasi ak yet mel ni ñuy topp sàcc moona de daan toog bés bu nekk ca kër yàlla ga di jàngale te jàpp leen ma waaye lii lépp xew na ngir amal mbind yonent ci kaw loolu taalibe yi dëddu ko daw yéesu taxaw na ci kanamu kuréelu àttekat ya ña jàppoon yéesu yóbbu ko kër kayif saraxalekat bu mag ba fa xutbakat ya ak njiit ya daje Pierre topp ko fu sore ba ci ëttu saraxalkat bu mag ba mu dugg toog ak surga ya ngir seet nu mbir mi mujje noonu saraxalkat yu mag ya ak kuréelu àttekat ya di seet naafeq bu mën a seede ci yéesu ba ñu mën koo rey waaye mënuñu ko am teewul ñu bare ñëwoon nañu di seede lu dul dëgg ba mujj ñaari nit ñëw naan kii ne woon na mën naa toj kër yàlla ga tabax ko ci ñetti fan ci kaw loolu saraxalkat bu mag ba jóg ne ko ndax doo wax dara loo xam ci li ñu seede ci yow waaye yéesu ne cell saraxalkat bu mag ba ne ko giñloo naa la ci yàlla mi dund nga wax ma ndax yaa di almasi bi doomu yàlla ji yéesu ne ko wax nga ko maa ngi la koy wax it li dale fi ngeen fii di ngeen gis doomu nit ki toog ci ndeyjooru aji aji man ji di ñëw ci niiri asamaan bi mu déggee loolu saraxalekat bu mag ba daldi mer loolu ba xotti ay yéreem daldi ne weddi na yàlla lu nuy doyati seede dégg ngeen ni mu weddee lu ngeen ci xalaat ñu ni ko yoon teg na ko dee ci kaw loolu ñu daal di tifli ci xar kanamam dóor ko ay kurpeñ ñeneen talaata ko ne ko yow kiris yonent bi ndax xam nga ku la dóor Pierre weddi na Yeesu bi loolu xewee Pierre moom ma nga topp ma nga toogoon ca biti ci ëtt ba noonu benn mbindaan ñëw ci moom ne ko yow itam àndoon nga ak Yeesum Galile waaye Pierre weddi ko ci kanamam ñépp ne ko xawma li ngay wax bi mu ko waxee mu jëm ca bunt ba te beneen mbindaan gis ko mu wax ña fa nekkoon kii àndoon na ak Yeesum Nasaret waaye Pierre weddiwaat boole ko ak giiñ ne ko xawma nit kooku nees tuuti ña fa taxawoon ñëw ci Pierre ne ko ci lu wóor ne yow itam bokk nga ci ñoom ndaxte sa waxin feeñal na la bi mu ko déggee Pierre daal di giiñ ak di waat ne xawma nit kooku te ci taxawaay ginaar daal di sab noonu Pierre fàttaliku la yéesu waxoon balaa ginaar a sab di ma weddi ñetti yoon mu daal di génn di jooy jooy yu metti kon ci li ñu mën a tënk rek ci aaya ñaar fukk juróom benn bii rek mooy ne gis nañu bi yéesu reeree reer bu mucc bi ak taalibe yi ànd ak ay taalibeem génn tamit dem ca toolu set semaine di fa ñaan ndaxte waxtu bi mu waroon a wuy jee boromam waxtu bi ñu ko waroon a jàppee jébbal ko bàkkaarkat yi atte ko ray ko waxtu woowu jege si woon na mu àndoon ak taalibe yi dem waxoon na ki ko waroon war waxoon na it Pierre ni dina ko wedd ñetti yoon balay ginaar a sab ñaari yoon te ni mu ko waxee woon noonu la amee woon kon gis nañ ni jàpp nañ Yeesu tàmbale nañ ko di ko déglu ak di ko sosol yóbbu nañ ko ci kër sëriñ su mag yaag xutbakat yi ñi nga xam ne ñoo ko doon fexeel yóbbu nañ ko foofu kon dinañu xool li ci topp ci yeneen jàngale yi di ñëw jërë ngeen jëf ñu ngi leen di sant leen gërëm di ñaan yàlla mu barkeel leen di leen fàtte rek ni mën ngeen ñëw bind ci numéro yooyu am na whatsapp tamit mën ngeen a bind seeni xalaat ak seeni laaj tamit ci suufu njàngale yi su ngeen amee ay xalaat ay laaj wala su ngeen bëggee it xóotal li ngeen jàng jërëjëf na leen yàlla barkeel ñu ngi leen jox dox daje ay bés yi di ñëw ci yeneen jukki na leen yàlla barkeel jërëjëf